Euh, je me présente, euh, c'est M. Medoun Gueye. Euh, je suis Thiessois, euh, d'origine Thiessois. Vraiment, di Sénégalais, di Africain. Affaire yi moom Coupe d'Afrique la rek quoi lépp biir Afrique lay des daal. Équipe nationale du Sénégal ñoom nañu xam ni c'est des favori quoi. lépp lu ñuy sàq ak beneen équipe aussi nañ ko def ak fair play parce que Sénégal la footballal rek loolu ndam la quoi ndamu africain bi nga xam ni génn na. bay fubal di fubal ak euh, di fubal euh, contre Sadio Mané euh, suñu équipe bu baax bi vraiment loolu joueur africain bu ko am rek ñun suñu ndam la ñun ñëpp nous tous les africains grâce à Sadio Mané ñu gën a encourager suñu xale yi xam nga gën leen a ñaax parce que réew mi monde bi fi mu ne dafa toll ci évolution quoi te Sénégal vraiment jiitu na ci évolution bi ci côté football léegi li ñu des ñu boole ci am euh, discipline par rapport au joueurs parce que ñoom ñooy ne ci terrain bi gis ngeen terrain bi ni muy tàngee bañ leen di yërëm di leen may ay temps ak affaire yooyu quoi ñun tam lu ñu bëgg-bëgg euh, ndam ma xam ni joueurs yi aussi du ñu ay machine ñi ngi def li leen war nañ leen ñaanal rek parce que équipe yëpp a baax ah équipe yëpp a baax waaw difficilement effectivement loo bëgg-bëgg euh, sa équipe aussi bu méttee nga xamal ni kon ni métti na Guinéens yi amoon nañ chance wu égaliser ak ñu ak yooyu yëpp xam nga bu ñu jay suñu bopp quoi am nañu équipe bu baax mais ñeneen ñu footballal yëpp aussi c'est des joueurs te Sénégal moom képp kuy football ak moom da ngay gis ne final ngay football dégg nga Sénégal nañu jàpp ni ñoom képp kuy football ak ñoom final lay wax ne moom lay football ak Sénégal. ah li ñuy xaar. mooy euh, ay bulu pétanque yu tàng jër jër jër jër jër nañu xam loolu commencé ko ci ñun supporters yi xam nga nañu ànd ak euh, fair play rek daal parce que comme lépp daal biir Afrique la nañu ànd ak fair play Sénégal moom monde bi yëpp xam na ni c'est le meilleur des Africains xam nga loolu aussi nañu ko wan yeneen équipe yi tension yi ni ñuy jéem a monter yooyu yëpp ñun nañu fexe nu ñu leen apaiser parce que boo nekkee ténor aussi danga war a xam ne ténor nga doo fayu yenn yi quoi boo ko defee da ngay ridicule ñun équipe bu mag la ñu te waruñu ridicule allez décourage les lions décourage les supporters yàlla nañu yàlla defal ndam ni ñu ko bëggee. oui man maa ngi tudd Mouhamed Ka. Mouhamed Ka ñu ngi ci ñoo ngi footaat ndànk alhamdulilah ñoo ngi ci footaat ndànk ndànk rek. oui mu ngi Sénégal waaw affaire moom vraiment Sénégal jour bi muy fubal bon affaire ci lay gën a kii quoi ci lay gën a ci lay gën a dox quoi. oui. di wax rek gars yokk ñaani parce que vraiment. gis nañ ni daal mu ngi baa football nan sunu sunu sunu sunu match de poul génn nan bon ñoo xaal xaar huitième de finale yi ñaan tamit yàlla mayaan si ndam rek incha allah. Mhm. bon fii am na ay moyen xale moyen moyen moyen mag xam nga am na ay drapeau am na ay bracelet yëpp am na fi. Oh, waaw waaw allah moom fii boo bëggee drapeau yëpp yomb na mooy tamit xam nga mooy daal moo xaw a cher tuuti rek. waaw mooy moom moo xaw a cher quoi. non fii moom yàlla def na ne ku fi ñëw soo ñibbi doo moom soo ñëwee dan la jaay prix adorable vraiment waaw ku ñëw moom ku ñëw moom. vraiment da ngay da nga kontaan daal incha waaw xam nga fii moom ku ngay gis fii moom parfois. kenn ku ne ngay gis daal mais ñun tàmm nañ ko ku ñëw dana la gérer bi nga dem moom waaw. di wax rek de bon ñu ñaanal gaynde rek ñu ñëpp ñu génn ñaan am nga tamit parce que ci la bokk quoi ñu si génn supporter gaynde yi yàlla defaal comme ñu am nañ ko première fois dañ koy ñëw dolliwaat ko deuxième fois incha allah ok di Mouhamed Ka ok jaajëf ah ok bëgg. bi war a franchement neex na. neex na trop et puis gars nañ bëgg nañu kontaan nañu parce que li la ñuy xalaatoon ci Sénégal mu gagné métti woon na nag teewul métti woon na mais nag Sénégal def nañ ci fula ak fayda gagné lii mooy maala mun lii mooy maala mun won la ne maala mun dóor la. waa non métti na nag non waaw non na difficilement équipe bi équipe bu mag la métti na et puis équipe bu mag la Sénégal nag da doon naxanteeg moom deuxième mi-temps bi xool nu mu ciy yàlla ma nañ nag ba deuxième mi-temps mu génn ci gagné ko alhamdulilah. donc ñu waaw non foofu lañu jëm dañu ñaan yàlla dem ay mag ay équipe yëpp a nga fa ne mais dañu ñaan yàlla dem yàgg ca kaw jël coupe bi moom lañu ñaan waaw. waaw la li may ñaax daal mooy gars yi jàpp xam nga jàpp Sénégal ñu supporté ànd ak ñoom. ca kanam jëli ndab li indi ko waaw. ñu tudd Memba Fabouré. Memba match Sénégal euh, di Guinée 2 bi à 0 ci diggante tey euh, selon yow nan ngay jàngatee match bi ci diggante Sénégal Guinée. bon l' essentiel moom def nañ ko victoire lañ soxla pour avoir les 3 points waaw loolu lañ def quoi waaw gis nga boo xoolee Sénégal si je ne euh, bi mooy seen premier coupe d' Afrique bu ñu def parcours 3 points 3 matchs 3 points 3 matchs. trois victoires quoi kon l' essentiel nañu ñaan Sénégal ñu gën a am taxawaay ñu gën a am ñu gën a am fit waaw ñu complété ko quoi franchement parler euh, c' est ça premier ci quoi mais l' essentiel moom lañu jàkkaarloo maanaam door mu toog mais tey match moom kontaan naa trop waaw kontaan naa trop. waaw Sénégal gagné na difficilement quoi franchement parler boo xoolee euh, Guinée du équipe bu ndaw quoi def nañ l' essentiel quoi football nañ quoi franchement parler waaw Guinée fu mu ne football foofu leer nañ quoi mais. Euh, wiir wiir jaari naar quoi Sénégal ko ëpp doole quoi. Sénégal gi ko si waaw gis nañ ko franchement parler match boobu la xaar quoi parce que ñëpp xam nañ Guinée mënuñu kaa gagné facile difficilement quoi facilement quoi parce que Guinée du équipe bu ndaw quoi franchement parler moo ta seen football gën na bënn bu ñu ko dangay laal Algérie laal li nga xam moo euh, a taxawaatee si huitième de finale non huitième de finale c'est une question de amul damay calculer kii bu dóoree ci ci bu dóor ci door mu toog quatre-vingt-dix minutes bu jeexee rek nga xam prolongation ngeen di dem te prolongation lépp mu na ciy xew quoi franchement parler parce que bii ay secondes lay dugg waaw Sénégal bon ni ñu foofu bu leer mais lu ñu raté dafa bëri quoi waaw franchement parler occasion ne matin premier mi-temps lu mu tuuti tuuti premier mi-temps ñu fekk am benn quoi franchement. waaw loolu laa gis quoi franchement. Memba Fabouré. ok merci beaucoup. ok on est ok. ça va. mi doy jël Sénégal. Sénégal nekk na. Sénégal Guinée. Sénégal et Guinée Sina Sénégal waa me hande me wul yaron hannde min wulle aɗon ki kono mayno saari ak goɗɗo ma waɗa ko o wi ko minen may ko minen kadi tawi yo minen sa mi welti ii min mbawa mo ii fuso waɗa ɗonno ko fijunare wonde woni fof sadio mané <laughs> eh, nini e eh, o o o ko wowarani sadio mané o comme seeɗa haali haali innaɗa hiwro sadio mané moƴƴano hiw ine sadio mané football ma weeli Football. Football weli? Football. Sina waɗi Guinée debi deux zéro. Yelo. Debi. Debi. Debi. Debi. Ina sa muji dernier mot. Wana mo fe. Ina sa de mani bi eh, <laughs> Merci jarama. Merci beaucoup jarama.